ki nga xam ne mooy Fatima moom mi ngi nekkoon ci benn dëkk bu ñuy woowee More mu nekkoon dëkk bi nga xam ni lu néew ci ay nit ñoo fa nekkoon ba nga xamee ni def na fa ay ñaari weer yooyu mu tàmbalee di manqué lu muy dundee métier bi nga xam ni moom la xam muy li nga xam ni mooy jaay ay garabu olof at di faj nit ñi doxul woon ci dëkk boobu benn soxna bu tudd awaa di xaritam foofu moo ko daan tibbal indil ko lu mu lekk benn bés Awa di waxtaan ak Fatima di ko nettali dëkk yu neex yu mu dem yépp mu wax ko ne ko am na benn dëkk bu ñuy woowee Zalika mooy dëkk yu gën a ngande ba pare rafet te am xaalis awa wax Fatima ne ko dëkk boobu soo fa demoon doo ko rëccu ñi fa gën a am xaalis ñooy fajkat yi te yow mën nga li ngay def essayel nga dem foofu doo ko rëccu kii di Fatima déglu awaa bu baax mu décidé ni day dem dëkk boobu le ba nga xamee ni ñaari fan jàll na kii di Fatima jóge ci dëkk bi mu nekkoon ñu koy woowee moore dem ci dëkk bi ko xaritam bi awa waxoon muy zalika ba mu yegsee ci zalika ku ko gis di nga xam ni dëkku fi ndax mi ngi waaru di xool rafetaayu dëkk bi ba pare kontaan lool mu dem di luwe benn néeg pour mën faa dal mu dem ci benn paa bu ñuy woowee sada Fatima wax ko fi mu jóge ba pare expliquer ko situation woom paa bi dalal ko ba pare abal ko benn kër bu yam kii di Fatima gëna waaru ndaxte ba mu juddoo ba léegi musta gis lii maanaam à part mère Safi mi ko yar at ñi mu xaritoog musul gis dëkkandoo yu baaxee nii ci pale bi ren Safia ñi ko doon jàppale ñépp tee nañ leen juge leen ba pare yóbbu leen kaso wante kii di ren Zara moom noppeegul ba léegi foo ko fekk kanam gaa ngi triste ndax jooy yi muy jooy saa yu fatoo ci néegam moom lu ci bëri da daan génn pale ba dem ci wetu dex bi nekk fa lu yàgg doog a ñibbi benn bés Ranzara dem ci wetu dex gi mu dégg fu sori benn soxna suy woy ba pare woy boobu muy woy kii di Ranzara temps yu mu ëmbee woy boobu la daan woy xolam bi nga xam ni da daan naqari lu muy gën di jege ndaw soosu xolam di gën a féex mu ñëw ba ci Fatima ne ko fan nga déggee way bii nii ngay way kii di moom ba mu gisee ren Zahra daf ko sukkal ba pare mu tontu ko ne ko way wii kenn jàngaluma ko dama juddu rek mën ko saa yu ma wéetee am naqar moom lay way mu may wéetali sama xol tàmbalee di féex ki nga xam ni mooy Zahra di waxtaan ak Fatima ba pare mu am mbëggeel bu jéggi dayo buy jóge ci moom te xamul lan la si la ko laajee ne ko ana say waajur Fatima tontu ko ne ko moom orpheline la maanaam jirim mu expliqué ko lépp ci mère Safi li mu ko muñal li mu ko defal ak ni mu génne àdduna kii di proposé ko pour mu ñëw dëkk ak moom ci biir pale bi ba pare wax ko ne ko biir pale bi moo ëpp sécurité te mun na fa am payoor bu baax ci fajum olof bu muy def kii di Fatima mu kontaan lool ba pare di ko sukkar rek wante tamit di ko sant bu baax a baax ci li mu ko defaral ba nga xamee ni Zara ak Fatima dugg nañ ci biir palais bi appartement yi nga xam ne Zara ak Keita foofu lañ dëkk mu ëttal ko fa néeg bu rafet jox ko ko pour mu nekk fa en attendant ba pare kii di Zara dem gis Mariama di yaayu Keita expliqué ko xale bu jigéen bu mu gis ba pare ne ko dafa mel ni moom mooy sama doom bi réeroon mu wax Mariama ne ko waxtu wi nga xam ni gis na ko cëram yëpp dafa taxaw muy yëg si moom bëggeel bu jéggi dayo kii di Zara ne Mariama dafa bëgg a def li nga xam ni mooy test ADN ba pare mu dem si faatiment présenté ko Mariama ba pare kii di Mariama dem gisanteeg Kayta wax ko lépp ba pare ne ko kee ma gis ne yaakaar naa ni seen doom la ndaxte niroo ngeen lool yéen ñaar ba nga xamee ni def nañ seen test ADN ba pare mbir yi ñëw nekk positif maanaam Kayta ak Zara ñoom ñooy waajuru Fatima ñu kontaan trop si nouvelle bu neex boobu ba nga xamee ni Fatima yëg na nouvelle bi moom it mu am mbégte lool ki nga xam ni mooy maître Jomo ak Kayta ñu organiser ko benn fête bu rëy ba su bi ñu solal ko ay yëre princesse maanaam ay yëre yi nga xam ni doomu buur yi jigéen yi ñoo koy sol ki nga xam ni mooy Keita ak Zara ñu taxaw ci diggu géew gi wax waa dëkk bi ne leen seen doom bi réeroon ci lu ëpp ci fukki at at juróom benn muy Fatima feeñ na mi ngi nii jàkkaarloog ñoom ñi nga xam ni ñooy waa dëkk bi ñu kontaan lool ñoom it ba nga xamee ni feet bi jeex na ñu teg ci lu néew ci ay fan kii di Keita utal doom ji Fatima ay professeur yu mag a mag pour ñu jàngal ko moom it nan la ñuy yoree réew dëgg la ren Safia ba mu génnee àdduna ba léegi seen kër gi amoon na jàmm wante bañ gisee seen doom ji Fatima si la ñëpp amee jàmm kii di Zara ree yi dellu siwaat kii di Kayta moom it mu am mbégte lool ndaxte mi ngi gis doomam ci wetam wante tamit mu kontaan lool si lu jabaram Zara feral ay rongoñam kii di maître moom tane woon na moom ak Mariama ñu dëkk ci wetu appartement Kayta yi ba pare doomu maître Jomo bi di Issa ñëw dëkk ak ñoom ci seen wet yore sécurité pale bi jël ay nit yi nga xam ni wóolu na leen teg leen fa comme Malick mi nga xam ni moo doon enquête ci affaireu ren Safia yi moom ñu def ko seefu garde royal bi ki nga xam ni mooy Zara ñëw ba ci Keita ñaan ko pour mu génnee Lise prison pour mu mën a yaral boppam doomam yi di Keita nangu li ko a wax ci la wax garde yi ñu génneel ko liis delloo ko dëkkam ba pare tere ko mu dugg seen dëkk pale bi amoon sécurité lool wante tamit mu amoon jàmbu ju bari di leen wax ngeen abone pour may chaîne bi doole wante tamit vidéo yuñ mënti dugal ngeen njëkk see jot jërë ngeen jëf